mu ne lii ba tey beneen njariñ la soo amee loo ragal te bëgg yàlla musal la ca li mën doon da ngay jàng li ilaa fi quraysin juróom-ñaari yoon teg ca ne sunu boroom yow day yaayu ki ragalul dara dara dara te dara lu ne ragal la ma lay ñaan nag ci wóolu nga wóolu ba ragaloo dara dara ak ragal gi nga xam ne moom la la lépp lépp ragal loolu ci laa lay ñaan man mii nga musal ma ci lii ma ragal ndax yow lépp nga man ñaan nga nee na saa yoo ko waxee rek dara dara dara du la mën a lor say boo xam ne mucc nga ci la nga ragaloon ak lu mu mën di doon